jërëjëf mbokk Sénégal jërëjëf wa aduna ba tay yéen a ngi ci foire Rayit bi waaye mbokk yi ñu ngi fii ci bergerie bi nga xamante si ni mooy Gaydel élevage fekk fi ki nga xamante si ni mooy mooy mooy Mbaye Ndoye nga xam ne moo nekk ci bergerie bi waaye dama leen wax ni à chaque fois box boo dem rek war ngaa xool nag oh, buur ba nekk ca box ba fii nag buñ fi taxawee xel day dem ci ndigal gannaaw buñ jugee ca Baye gay dañ fay fekk ab sëtam ndax kii taxaw suma jumul juumul mooy doomu Ndoye noyel Noël doomi Noël mo taxaw ni te Noël xam nga ni ndigal moy bayam kon tay ji nak buñ taxaw fi mu taxaw ni ñu tuddé ko nak mamam waaw mu jekk lool nga xam tëggeej mamam yoron sax dako yor tay taxaw jëmaayi mamam mat ko sekk place am kon bay da melni ki ngay ray euh histoire la waye ki ngay ray tamit xar la mo xam tay ji boko jaan am njëg boko rendi am dawal te koko may mu ko ak yow kon ñu bàyyi la nga nuyoo nga ñëwoon tur ci ndigal waaw wax Wah, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen sant bu baax te di leen gërëm itam ci seen teewaay waaw comme ni nga ko waxee rek noonu la demee kii Noël mooy baayam Noël moom ndigal mooy baayam moom mii lañ ko tuddee waaw moom sax ab seex la waaw moom seex la moom ndigal la moom mii nii am na seexam bu tudd gaydel waaw yaa nekk doomu sengoor yaa doom nekk doomu sengoor mhm. waaw moom ana kañ la tàbbi say loxo moom nag maa ko mako jodlu waye sunu mbag gi nga gis ni mu taxaw ci ginnaw moom mo nu gëna min miin bi waaw kon fi tonni gore du gore du taxam mag du taxaw gore di wax kon dañu jël kàddu gi mhm. jox ko sunu jëriñ ji sunu baay ji baay geey mom mo ñu gëna mëna mën a leeralal mbir yi ko joxé kàddu moy rek euh, tuba bu dem Paris ndax baay geey sank ci boxam geey sen ko ci écran bi waye fi buñ fi taxé baay geey nak dafa nekkon propriétaire ci ndigal nga xamante car tay produit nga fekk ko ci ben box bo xam du sa box borom box bi am ngor lol ni la euh, wax ma ci kàddu gi ndax tay produit bu fi am rek ci sa box la euh ana tay fi ma la fekk tay ana la ma fekk la fi. waaw fi nga ma fekk euh sama jarbat fi sama keur la ndax ki nga xamne moy mbay ndoy sama way lañu yag lol ma nek keur sam ci élevage du def ci élevage luma yegul du wax ci élevage luma yegul euh ben doomu Senghor ku ne xamne ne Abdou Fall Senghor lañu boole ak benn doomu Cheikh Anta bi neewon ci job Boulanger mu génne benn bérébi benn bérébi bu doy war bérébi bobu tay mom lañ tek ci Noël Noël dom ci ndigal ba gaydel bi ñew euh, ba ndigal mi ñew mbay tubee euh, tuddee ko mamam cheikham ma nga ne ci bok cheikh mbay sekk ñu koy gaydel muy xar bo xamné boko xolé ci walu doole amna ko bam doy allah nga xool ko ci wàllu dayo am na ko ba mu doy sëkk nga xool ko ci wàllu beauté am na ko ba mu doy sëkk loolu nag sàcc ko da koo donn ndax ku ndigal na doon sa maam da nga rafet ndax ku ne xamoon ne ndigal xar bu équilibré woon bu rafet bu bay bu amoon bayre la mhm. waaw bu barkeel aussi mhm. loolu sax sama taxawaay fii nag li ko waral mooy mbay nekk sama waay mhm. di partagé moo war koy taxaw bi élevage bi nga ci xam mooy partagé ak essence waaw waaw élevage li ma si xam li ma xam si élevage mooy partage parce que nit bu fekkee dangay ngay partagé dara du la rëcc parce que booy partagé ñi ngay partagé aussi tamit dañ lay delloo njëkkal di partagé ak yow loolu moo tax man élevage partagé lay def mbay dey partagé man damay partagé te élevage moo ñu tax ñu xamante man ak moom nekk ay waay depuis longtemps man naa ne boobaak léegi yàgg na te mi ngi rafet c'est ça l'élevage te ku dikk fii ci bergerie bi xam ne mbay vraiment liggéey na parce que indi na fi ay produits fii yoo xam ne nii maal moo leen jur booy gëstu comme ni ma la ko waxee rek boo commencé ba box bële ba box ba fin fin foo dugg di nga fi fekk sëtu ndigal waaw box yi rang la foo dugg fekk ndigal kon loolu mooy partage élevage partage ñun moom la ñuy def waaw xanaa di ko ñaanal rek maal bi li muy liggéey nii yàlla na barkeel mais ku xool li mu exposé sujet yi mu exposé xam ne vraiment mbay exposé na ay sujet yu doy waar ci ci ci ci gabarit ci beauté ci dayo vraiment liggéey na. Mhm. il bokk beaucoup travaillé franchement. lii la ñuy wax naan moo tax boo boo boo duggee ci mbir mi bëgg am produit bu baax ëllëg kon racine nga daa mat a xool. ndax su fekkee sa tundigal nag moo meññ gétt gi. kon di wër laa bett. waaw bettuma parce que maal bi bu juree ay doom yu mel nii vraiment ça me fait plaisir am naa ci mbégte am ci contentement mais bettuma mais nag euh, mbay ndaanaan la mais wëyu la damaa nëbboon tëng yi euh. tey laay door a gis tëng yi xam naa daa bañ ma laaj ko. Euh. maa ngi koy laaj nag muy rasu dégg nga ko na ma jox yow loo fi neex da koy gàddu ak yóbbu ah. ndax tey ci barke ndigal ci lañ ah. cof ba toll fii tay dëgg la dëgg la waaw ndigal moom dafa barkeel rek dafa barkeel rek parce que booy xool euh, li mu fi bàyyi woon ba léegi mi ngi law hmm. te bu nekkoon fekkoon nekk na maal boo xam ne du maal bu extraordinaire hmm. kon ragal naa liggéeyam arrêté nañ ko bu yàgg mais ba mu dee ba mu daanoo ak léegi ça fait longtemps mais hmm. produit ay produit ay descendant am ay ay sëtam ba léegi ñu ngi juddu loolu moo la waral ne moom champion la woon parce que Mali fi nekk champion yëpp gars yi dañuy bëgg seen di continuer bu fekkoon dafa ñëw liggéey liggéey bu baaxul dañuy arrêté liggéey mais liggéey bu baax bu mu liggéey ci élevage ndigal moo tax liggéey bi continuer vraiment il a marqué son temps waaw def na jéego yu rëy ci élevage moom ndigal waaw mais tey sama kàddu gu mujj ak yow rek bala maa dem san waa ji tey boo ñëwee ci box bi xool tey jii foire bi box boo sànni sa bët rek boo fa gisul sëtu ndigal gis fa lu bokk ci moom tey mu nekkoon say loxo tey yëg-yëg googu ak liggéey boobu lan nga wax éleveur éleveurs yi ndax ëllëg kenn ku ne war nga di am nag champion bu mel noonu ndax élevage dem ca kanam. waaw xam nga nag euh, li ma koy wax toujours c'est le mâle qui fait la race soo amee ay femelles yu baax daal da fexe ba am mâle bu baax bokk fu wóor parce que mâle mooy defar mbaar comme ni ma la ko waxee boo gisee liggéeyam di continuer ba léegi daal comme ma ne dafa nekkoon mâle bu équilibré bu mën doom. ndigal dafa bokon ci direct du wor ndax ko am Abdou Diouf xam Sassilon xam Birame Ndiémé xam Badlen xam ni ci xari njëkk ku tuddu tudd len xam Tyson ku tuddu len te ñom ay ñoy ay mamam motax ba legui liggéey mi ngi continuer te dara téyewu ma sha allah motax lu dëgg lal rek yaakaar na ni deug rek lay mujjé ma gis nak Mbaye Ndoye mi ngi mujj fakh di fon ndigal ki fon ndigal yaakaar na tay loko tegon ci xaalis lu mu reey reey gëmu mu jox lako ah. sa waji ma ngi lay nuyu waaw ngi jaar bu baax di len sante di len gërëm di rafetlu liggéey bi yàlla na leen yàlla defal jàmm defal leen ngeen jëm ca kanam ak kanam ak kanam. aco tey ma fekk la ci box bi. ndigal mi tey bi mu fippoo siisu sax dama laa gis ne yaa ko calmé ba joxe yoon wi nga xam ne tax mu nangu ñu def émission bi ni kon nañu gi bu yàgg ndax ñoom dafa bokk ci deret ju tàng joo xam ne bu ñu xasee ba sa ñëw du neexatee nga fexe ba calmé ko li nga def sànq geste boobu nga ñëwal ma tuuti. waaw loolu loolu loolu moom du dara xam nga xar hmm. bëgg la rek. ak giñ ci Ah, moo tax moo tax ñu ñu ñu kii loolu te ndigal moom dafa nekk xar moo xam ne yàgg naa liggéey ci xar sonn ci trop mais maal bii nii maanaam dafa nekk maal boo xam ni maanaam dafa ñëw lu nekk loo xam ne lu kawee sama njort la ndax élevage moom daanaka maal moom mooy moom mooy liggéey te wax dëgg yàlla grand bi bandi la mais sama grand la quoi sama grand la <laughs> bandi la mais sama grand la parce que ba élevage moom il faut nga am koo xam ne daanaka moo lay teg loxo sinon rek di nga di nga sonn trop ndax ni milieu bi ni mu demee la te boo amul maal liggéey bi nga bëgg a liggéey doo doo ko am mën ngay tourner lu yàgg ay at doo ko am mais damaa doon benn famille boo xam ni moom moo ko gis ci Assane Seye ni ma demal nga nga nga jëndi ko ma jënd ko bi ma ñëwee mun ma kii da koy indi ak nawel te daa mel ni doomu sangoor yi ak nawel a ndig ak ndigal surtout ndigal yi dinañ déggoo may indi ko fa nag mu daal di mu laa ma daal koy booleeg moom mu daal di tëb bi mu ñëwee daal di indi ay seex. indi ay ay seex daal di indi ndigal. ak bële beneen beneen kii bële gaydel ak gaydel mu nekk euh, ñu nekk judd judd boo xam ne juddu bu rafet la ci laa xam ne ñii dinañ am avenir. ci laa ko téye nag mais moom topp nañ ma ci ba sonn fay ma ci xaalis bi mu juddoo ba ba léegi kon tey jii su fekkoon xaalis mooy kii kon maal bi kenn waxatu ko. aco dañoo wax ne nag judd bu rëy moom ndaay ak baay waaye loolu feeñ na tey ci ndigal ak ñi mu fi fekk waaye box bi ñu dugg tey du ndigal rek moo fi nekk maa ngi fi gis ay tëng yoo xam ni ak ay femelle yoo xam ni grand Cheikh Mbaye mi ngi koy wax sànq daa mel ni sa waay dafa nëbbutoon waaye bi mu génn ba ñëw bi loxo dar na gémmiñ waaw waaw xam nga liggéey bi moom moo moo laaj loolu te xam nga gars yi ñoom dañoo xaw a doy waar buñ gisee nga yoru lu rafet moom boo moytuwul waxuma la waaye <laughs> bu ñu juddoo moom <laughs> dégg nga koy këf yóbbu waaye mbay joxe ah, déedéet déedéet waaw parce que élevage li ma la wax rek dafa métti mm-hmm. dafa am ciseaux yoo xam ne boo ko judduloo mm-hmm. bëgg a àgg yenn niveau yi il faut nga téye ko. parce que ndigal il faut ndigal gis nga yi muy génne moom dalay defal wet defal la beauté. defal la hauteur li nga soxla lépp ci ci ci femelle dala koy defal moo tax. moo tax xam na ma ma ma téye ay doomam moom ay doomam yu jigéen ma téye leen am na yu mu bàyyi kër gi sax yoo xam ne daanaka dañoo tëbb boo xoolee femelle bi waaw. ak bi ay mag ak rak hmm? ay mag ak rak lañ waaw te ñoom ndigalay seen baay waaw ndigal boy seen baay moo leen jur ñoom ñëpp moo jur bi ñoom ñëpp moo leen jur ay ay ay sixième lañ loolu moom moo tax ñu tëdd lépp ay produit lañ mais ndigal daal gàcce ngalaama xam naan daal ndigal daal bu xar doon dem màkka di ngeen ko di ngeen ko ajali moom ndigal kay gàcce ngalaama sëñ bi ndigal moom loo ci wax rek des na hmm. loo ci wax rek des na ndigal ajo ajo Baye Cheikh waaw waaw nag maam damay sant kii sama grand la na wax dëgg yàlla nga amul benn problème waa ju la heure bu ne laay dem këram heure bu ne laay laa la la laa koy yee lu ma soxla ci xarit bu ma ko wooyee du ma tàngamlu du ma tàngamlu su ma ko wooyee dina ñëw lu ma ko wooyee dina ma jël téléphone te bu gisee loo xam ni dafay avancé gétt gi day ñëw ni ma defal nii defal nii defal moom nag moom nag man dinaa ko sànni xeer foire bi ma fi ñëwee ba tey box bu ma dem rek da ngaa génne xaalis fay waaye moom dama ne ko dama defal gratuite daa am loolu waxante woon na mu fàtt dama ne ko man damaa bëgg dugg ci élevage damaa bëgg am waaye bu ba léegi nag ni sama grand ah sama baay la non non sama baay nga loolu moom dinaa ci jàpp loolu amul ben problème incha allah ñëwal kër ga rek incha allah incha allah waaw waaw ndax yow fi ne relève bi dañ ko war a porter ñun njaboot gi ndax fexe ngeen ba dugal ci amour ndax lii yaakaar naan lu yàgg la ndax seen i maam ci dàq rek boo demee bu njëkkoon boo demee ci gëttam ginnaaw këram daan yow lu mat téeméeri nak wala fukki xar ak ñaar yoo xam dañuy xëy rek wëttal kon tey bu demee ba xar di nekk ci biir kër ñu xaj ko ci aj ko ci kaw terrasse di jox tàngal muy màcc boo ci nekkee war vraiment waaw teranga la parce que ku ci ne man mi di wax ayo sama maam yep ay sam lañ wax na la ko tout à l'heure parce que élevage yag na ci 86 ma ngi sam xar wax na la ko légui xam nga xar dafa doon lo xamanteni dafa nek amour bo xamni day nek au fond du cœur dang koy bëgg man dama bëgg xar au fond du cœur dama ko bëgg tay suma demone sax genn am quelques prises de gueule mel suma ñëwé tok ci xari rek sama mère giif dama leena bëgg ta ma ñom la ba keroog lu yàlla def yàlla yàlla guddal fan yi waaw mais xar moom vraiment sama bëgg-bëgg la sama vis la yàlla moo ma booleeg moom façon jur yëpp yor naa leen luy am karaw rek yor naa ko kër gi waaw macha allah ok mi nekkoon ci bergerie Gaydel nga xam ne te ni mooy Gaydel élevage dañ leen war na produit am dama leen wax ab nag boo fa duggee wala nga dugg ci gétt foo ko fekkee sëtu ndigal mbaa sëtu préfet mbaa xar yu baax yooyu nga xam ne kenn ku ne bëggoon nga am ku ne mel yee ca des sax da ca topp di waxtaan sax xëy na wax ju kii la rawatina ak seenu njaboot ñoom kon foofu lañ leen di wax rek du ñàkk nag bergerie bi am na ñoo xam ne ñu ngi wër lu to lu lu bokk ci ndigal te daa fees dell ci bergerie bi wan yoon ngeen leen mën a teg ak adresse bi ngir bu mu bëggee jokkoo yéen ci wàllu liggéey bi. waaw dëgg la adresse bi moom ah, Baxdaad lañ dëkk rek en face kër Sëñ Xaadim gay del mhm. boo fa ñëwee rek. di ma fa fekk. numéro téléphone bi. moom ngay jël waaw 77. mooy mooy waaw mi ngoog mi ngoog 77. 12 20 555 12 20. wala 77 394. 36 22. waaw wala boo woowee Baye Gueye rek. Mhm. moom dina la teg ci yoon di fa ñëw. damay ragal nag Baye Gueye bu ngeen ko bàyyee. boo deful ndànk meññee fi. sëtëm sëtëm yi non non moom du def loolu. fu ne nii moom moom gétt gi gétt il yóbbu tëng bi. non man kay ni ma waaw non dinaa

mu nekk bergerie euh, Gaydel nekk fële ca Baxdaat di nuyu baax sëñ xam loo Gaydel borom ndam ndax bergerie bi ak këram ñoo jàkkaar lool te ndigal mi ab seexam moom lañ ko tuddee muy ndigal mi ngi ne la taxaw muy Gaydel mi ngi ne la taxaw ca bokk suñu baay Seex Mbay Seck kon yaakaar naa ne loolu sotteeg def ci la lépp di Baxdaat waaye lépp di cees di jox dig daje eh, ci yeneen box jërë ngeen jëf